nag damaa bëgg ñu dugg ci bëyit yi hmm. bëyit yi sikkar ci ñu sikkar ci nga sikkar ci bëyit yi hmm. Assane sikkar ci bëyit yi bàkk ñëw ci ci bëyit parce que laa ilaaha illallaah yi neex na lool hmm. damaa bëgg nag ñu dugg ci ci bëyit ah, ah, ca bismillah ñu dugg ci ci bëyit yi ndax léegi émission bi jeex tamit ah, waaw émission bi léegi mu jeex de waaw problème loolu waaye aussi entourage bi nag la ñuy daanelee moom. tey daal dëgg moom bëgg naa aywa wala bisimilah bu la ci neex rek. محمد مصطفى أولاه مولاه خل الهدايا وأدنى والاه مصطفى أولاه مولاه الأطايا ودنا هوا سماتا فدفع نفر بأجي وبهيدا فغياناه الحدي وبويد الفقر أنا لو تعاله ولو أسر لخلق ترف ما فرش شرعاء مصطفى المصطفى من مصطفى وصفى المصطفى وصفى من أجل قرباه ولو أكرمه في يوم مولدي ورهت به مدري ليلة مصرعاء الميم قد من رسالة ما أعلى وأعلى تبا صديته فدا صديته ختم صورته وتم مهناه محمد سيد الكونين نورتنا وكل ما قد فمن خطاياه الذي أسرى الحبيب به جبريل قديم لا لو ترى مصطفى إلى مما من هدى وزلهم والتم لم تجر المزايا بندت حنانبه فطيب عز الله واعطي نزلايا وتي رفعته وتي متاته وتي هراهته وتي مطايا سبب هي يفو بلا هدب فاتز جايا وتي زبي وته وتي دوي وته وتي تلاته وزاكم الله كته وتلك تابته وتي تلاته وزاك جدوا برهام مادمه برهام هادمه فتي متائمه وتي خطايا فسالته وتي فسالته وتي زنايا وتي سجاته وتي بصارته وتي كرامته وتي وصايا ربنا وسلم من اعلى محمد وارزقه بيد لقيا وسل يا ربنا وسلم على هذا الحبيب وكم بالرب بشراه وسلم على محمد وارزق العبيد لقيا وصل يا ربنا وسلم على مايدنا الذي خطانا الوا يا ربنا وسلم على محمد وارزقا برحم رقيا محمد البارع اكوان شمد تمر هرمته ورحم دعاء امدتي محمد وزري أنت طائف وابن مسلم محمد الأحمد الماهي وآسرنا محمد الآكب الأكرم بأسماء محمد بشر وليس كالبشر سيف الحقيق ورابط عظمه صلى الإله عليه سوف توبته مسلمنا بل كان ذكراه محمد مصطفى ما تاب مقناه وصل يا ربنا وسلم على مفتي خطايا يفنى وسراه يا ربنا وسلم على محمد برق القلب أزما وصل يا ربنا وسلم على محمد من برا قلبي وأسماه يا ربنا وسلم محمد وقبلا من ثيايا وصل يا ربنا وسلم على محمد من شفى جسمي وأدناه ربنا وسلم على محمد وادب العمر برايا وصل يا ربنا وسلم على محمد من قبل مني خطايا سيفي بين أولادي وهو من وليهاني فمده شوق أورادي وأصحابي وإلادي وسيفي بين أولادي وهو روم وريحاني شيخ القتم مواني فتنفى منه أخذاني وأولى منه mbokk yi ñuy seetaan yëf yaa ngi xanaa bu ñu leen waxee ne kon gàmmu Kaolagu ren euh, vraiment Sénégal set dina ci marqué empreinte am lii nag ñamali bu ñu leen di jox rek xam naa ñamali gi ñu ngi ñu ngi gàmmu gàmmu gi te dara jotagul waaye ñamali bu ñu leen di jox la euh, Clayton dem ngeen ci laa ilaha illallah gi euh, jaar ngeen ci bayit yi fu mu toll nii nag sikar wolof moo des bu ngeen si kare wolof sàmmaawu nag ñu tëjee sàmmaawu gi kon dem leen ci sikkar wolof gi ay bismillah فهذه سلام مني إليك مارئ الأنبار وطيب المسكال دمي والبت مولم غير سودان تزاير ستبان بجهل سودان سمخات الدفر تتبار كجور may way tijaaru moo jëlee jaay may jooju bi ci lislaam ma ko doon koo jëlee ba ca yaa doon mu rabbaan sëriñ bi ñeneen ñi nga làmboo ci diine lislaam soppe bee la ko jox moo ayoon ci xaddiim xut bu jaami nas yaa di jant jollool saxaal fi ay leer te fi ñootu maa ngi laa yalwaan yow mi doon mu may ma ñu kon xol ma bee الإيمان فقل لنا تبلنا نغمة جوك جبيقون رفلنا يدما كن مبان ميقان سكو الغنى قاو خدم فاتو البور سيخي الغنى باوان بمني أونيل ساعتي غنى يرياي قليل وخمان بلو وخبرم كل بال دنا نفيقون سخر باين اللام بوشي الدكتور da koo faj mu wër far da doon doon docteur da koo far mu si lor mi da koy ko bisura mu tàggoog mëri dunya kasaaka awra mbokk yi lii la ñuy wax vraiment exclusivité xanaa Sénégal 7 di leen joxaat rek euh, dig daje fële ca Kaolack ndax gàmmu gi ren incha allah nar nañ cee saf-sàpp Baye a ngi nii euh, l'international a ngi nii taalibeem yaa ngi nii toog muy profité rek di gërëm Cheikh assan Clayton bu baax Bakk Cissé sunu sëriñ euh, vraiment kontaan nañu mais lii nii ñamali la rek ñamali la dañuy tàmbali rek. Kaolack la ñuy yeggalee mbir mi ndax euh, li ñu bëgg a def daal ci direct la xaj direct Clayton toog ñëpp toog grand mbubb yi génn euh, ñu def direct Sénégal Sénégal yëngu. vraiment taalibe Baay yëpp kontaan nañ fu mu man ma man maa ngi nuyu mbépp